li ñu yëkkati dafa yitteel dëkk bi yitteel borom dëkk bi yitteel ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bi muy wàllu assainissement loolu moo tax son excellence le président de la République Macky Sall ci 2022 mu joxe ndigal génne benn financement boo xam ne état du Sénégal moo ko génnee moo ko joxe ci budget lu war a toll ci 45 milliards dugal ko fii ci biir Touba ngir jàpp ak régler problème yu baree bari yi nga xam ni moom la Touba am ci wàllu assainissement cinq milliards yooyu lenn li mu ngi jëm ci ndox mi nga xam ni mooy jóge ci taw bi ak li nga xam ni mooy ball di jóge ci biir suuf si liggéey bi tàmbali nañ ko danaa ci ñëwaat léegi leneen li ci des mooy li ñuy wax assainissement eaux use mooy ndox yi nga xam ni dañ koy jëfandikoo ci biir kër yi te loolu itam mu am lu mu laaj ci wàllu liggéey ak wàllu doxalin. Hmm. loolu itam liggéey bi tàmbali na ñi ngi ci. beneen pàcc bi nga xam ne itam pàcc bu am solo la muy assainissement wu université Cheikhul xadim bi ngeen xam te ñu xam ñun ñëpp fi ko xalifa bi teg yitte bi nga xam ni moom la ko xalifa bi jox président de la république Macky joxe ci ndigal. nee na ONAS jël en charge lépp lu jëm ci wàllu assainissement université Cheikhul Khadim boobu. Mhm. donc loolu sëriñ bi moo doon suñu ay tànk ñëw ànd ak équipe yi xool li fi nga xam ni foofu la liggéey bi toll. contexte bi nag di contexte su nawet waaye di contexte surtout màggal gu mag gi nga xam ni moom la ñuy waajal ci semaine yi ñëw. te ku ne xam na ni ñi nga ñi jóg ñiy dugg ci biir dëkk bi jóge bitim réew wala jóge ci biir réew mi di ñëw ngir fekk bis bu sedd boobu lim bu bu takku la lim boobu nag bu ñu bu teewee jaadu na ñu mettre dans de bonnes conditions fexe ba ndox mi nga xam ni moo jóge ci taw bi ñu mën koo mën a drainer mën koo yóbbu ci barab yi nga xam ne fa la war a jëm loolu moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp trois semaines yu ne ñu ñëw fi benn yoon wala boog weer wu ne ñu ñëw fi benn yoon ànd ak équipe bi saytu ko xool fan la liggéey boobu toll. Euh, sëriñ bi ma bëgg a dalal sa xel rek wax la ni la président de la république ak premier ministre ministre de l'eau et de l'assainissement ak mise en charge des inondations moom itam mu fi ñëw tout le temps di fi ñëw ñi ñëpp di ko gis seen yéene. ak institution yi ñu jox ndigal li ñu jox mooy ñu fexe liggéey bi gaaw mucc ayib te war mel li nga xam ne noonu la war a mel mm-hmm. foofu lañ teg suñu tànk ñu itam bu dee ci wàllu bassin yi gis ngeen conduite bi nga xam ni moo jógee Ngiraneen te war a jëm Ngélému muy conduite deux kilomètres trois cent defar nañ ko ba mu yegg daanaka li ci des euh, fukki mètre la loolu ci fan yu néew mën nañ koo yeggale te li ko xawoon na gàllankoor sax sëriñ bi mooy bassin boobu xam nga ni am na ay mbokk yu fa dëkk ñu war leen waroon leen a fay ngir ñu libéré locaux yooyu li ñu libéré barab boobu yàlla suñu borom dogal na ni ñoom ñëpp tàmbali nañ di leen fay ci fan yi am nañ yaakaar ni balaa yàgg bassin bi dinañ ko mën a libéré bu ko defee ndox mi mën faa mën a mën faa mën a jaar loolu mooy lii jëm ci wàllu ngélimu bu dee ci ñaari bassin yi nga xam ne daaw gisoon nañu coono bi ñu indi indiloon muy bassin pof bi ak daaru raxmaan muy ay bassin yu mag a mag yoo xam ne lu ci ëpp ci ndox mi jóge ci biir dëkk bi foofu la jëm lii kër ñang lay jóge lii ci yeneen barab lay jóge bassin yooyu jaar naa fa gis nañu liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax a baax a baax sëñ bi ànd naa fa ak monsieur maire mi ngi ñuy toog am naa yaakaar nii ah liñ ci bëgg danañ ko ci danañ ko ci mën a am. Mm-hmm. Euh, bu dee bassin bi nga xam ne mooy Kër Ñang muy muy bassin bi bi gën a mag ci dëkk bi nga xam ne daanaka ndox yi baree bare yi jóge ci biir dëkk bi foofu lay ñëw joxe woon naa ndigal ñu yokk capacité de pompage bi maanaam li nga machine yi nga xam ne ñoo koy ñooy jëlee ndox mi ñu yokk leen fi mu ne nii tey capacité bi fa nekk <coughs> war na jege mille cinq mille mètres cube bu ko ëppul jege na ko entreprise ña nga fa di liggéey jaar nañ fa léegi monté nañu fa ñaari bassin wu mille mètres cube heure yoo xam ni ndox mi bu ñëwee mën nañ ko yóbbu ci ci bu gaaw a gaaw bu dee ci fii ci Touba mosquée euh, xam nga ni sëriñ bi euh, ci biir projet bi euh, état président de joxe woon na ndigal ñu samp fa lu war a toll ci ñaar fukki forage ñaar fukki forage yooyu seen liggéey moo doon xëcc napp biy jóge ci suuf ndox mi jóge ci suuf ci suufu suuf si di ball da ko pompe forage dañu ko woon ŋàcc def li ñuy wax rabattement ba ndox mi dem ba ca sore sore yi bañ a génn forage yooyu yëpp ñu ngi dox fi ñu toll nii ma lay bëgg wax ni tey incha allah fas nañu yéene installé waal installé waat ñaari forage yu bees benn bi ci résidence euh, euh, Cheikhul Khadim danañ bu ma jógee fii léegi foofu laa fas yéene dem beneen bi ci des ñi ngi koy installé ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké loolu yëpp ay instructions yu président de joxe la ngir ñu mën a def magal gi ci jàmm ndox mi bañ a génn wala bu génnee tam ñu am fu ñu ko mën a jaarale mu dem li nga xam ni foofu laa jeexale mooy buntu mairie bu bu bu Touba. nga xam ni kuy yeewoo Touba xam nga ni barab la buy buy buy taar. monsieur le maire loolu jaaxwal na ko lool. démb yónnee nañ fa benn moto pompe bu mag bu 1500 mètres cube heure ku jaar ci buntu mairie bi da gis moto pompe bi foofu yooyu bariwul ci ONAS bariwu fi donc indi nañ ko ci ci tuubaa ci buntu maire bi mu war a war mën a war a mën a pomper ndox bi incha allahu taala maanaam bu tawee ci diiru fanweeri mi jëm waxtu ñu ŋàcc ndox mi mu dem ci station bi nga xam ne moo nekk ci danañ ko booleeg flexible boo xam ne mooy tuyau bi muy jaar lu war a tolloog ñaari kilomètre yaakaar naa ne démb bi muy ñëw ànd naag 500 mètres. ci des danañ ko indi ci semaine bi liggéey bi tàmbali incha allahu taala. ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ne mi ngi delloom nuyoo Mamadou Mamour Diallo directeur général bu ONAS ak mbooleem délégation bi nga àndal ñëpp ne bàyyiwuñu kenn ne di leen sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha kat mooy boroom liggéey bi no ñu ngi yëkk yëkkati kaddu ci turu Cheikh Ahmadul Muntaxa dina yóbbanteem nuyoo ci président jaar fi ci jéego yi nga xam ni def na ko mu yitte yoo xam ni ne moom mii toog Cheikh Ahmadul Basir moom la sëriñ bi yónni woon ci président de la république 2020 ne président def ci yitteeg taxawaay bu mat ba liggéey bi tàmbali nii kon ñu ngi koy ci sent ci sëriñ bi ne di la sant yow itam Mamour Diallo ci yitte ji nga ci def ndax loolu kat bettu ko ci yow ndax xamoon nañ la lu jëkk lii nee nga am ak Cheikh Mamadul Muntaxa wala de ba mu nekkagul Serigne Touba saa soo masay jógee ci moom dem ci sëñ Muntaxa ba sëñ mun taxaar ràññee la bu baax nee mu xam sa digganteeg sëñ Muntaxa kon nag bu yàlla defee ba liggéey bi yegg si sa loxo nga defaat ci taxawaay bi nga ci def kon loolu béttu ko kon dañ la ci sant di la gërëm di la ñaanal itam liggéey bépp yegg te yàlla defal la ci ndam nee la ca desit nag mooy la mu la doon waxaat ci biir rek mooy jéego yi nga ci def bari na waaye dëkk bee rëy nag ne yow wax nga ko léegi ñaar fukki bassin nangam ñoo ne ci dëkk bi yuy ndox te day mel na ñett wala ñeent lañ ci defagun kon day mel ne bu doon téeméer weesoogul fukk daanaka kon des na lu bari te assainissement bi bu amul cib dëkk bu yàggee dëkk ba daanaka day yàqu ah, ne boo seetloo tëli yëpp a yàqu fi mu ne te loolu li ko indi mooy taataa yi ak nab bi yëkkati yëkkatiku kon nag loolu def ngeen ci jéego yu rëy ba ñu bari eh, na mu diise woon ci ñoom wàññiku na waaye des na nag ay at yaatu na ci dëkk bi sax ne boo weesoo këram gii rek balaa mat juróom fukki meetar nab bi yegg na fa ne kon yaatu na ci dëkk bi waaye am na ci côté yu gën a mittee rawat na fu mel na ndaamaatu kër yu bari bari génn nañ seen kër kon foofa itam xam naa def ngeen ci yitte waaye lii moom day lu mun taxaar te état moom ñaare lu mu bëgg a lijjanti lu mu jamp-jamp man na caa ami pexe kon ñu ngi la koy fàttali nañ la ko waxee woon ci biir rek ak benn benn mbedd yi nga xam ni buñ ko xëccee ci réseau bi rek nit ñi daañu mën a jàll rawatina booy dugg Touba li ci des nag moom waxal nga ko sa bopp mooy yéen a ci liggéey bi te jeexagut waaye forage yeeg nab bi daal moo bëgg nañ ku ñu ci gën a dimbali ne du toog ñaari fan ak ñett te mbooloo ñëw fi jàmbat ko tey dund condition yu métti na nit ku nekk ci biirum néegam ndox ma ni fekk ko ci ba ci kaw lalam dajji karo ya loolu xaw naa diis bu fekkee amoo foo dugg nag dana xaw a métti kon loolu rek lañu ci yóbbante di la bu baax di la gërëm di la xamal ni yitte ji nga ci def xam nañ ko ne ñetti semaine yu ne nga ñëw fi te doo yëglu doo ànd ak télévision kon li ngay def dëgg nu ci yow doo woote sax da ngay ñëw ba dem ñu dog koo yëg kon dëkk bi teel na la njort na ñu ngi lay ñaanal ci barkab Sëriñ Tuubaa coono yoo ci daj rek yal na la ko Sëriñ Tuubaa fay jërëjëf jërëjëf tàllalal Mbakke tàllalal loo bëgg te nga wax dimbali leen ko ci guddi gi ak ci barke Cheikh Abdou Khadim amiin nangu leen ñaan bismillah